donc parle de Pastef mhm. est-ce que vous comprenez et si on revient sur cette décision qui a été man dama jàpp ni cette décision là mhm. man loolu laa jàpp lecture politique bi mu si am c'est-à-dire le pouvoir politique va essayer d'utiliser mooy le régime là ils vont essayer d'utiliser cette décision politique pour essayer de reporter les élections mais loolu nañ ko génne seen xel si naka c'est-à-dire que en fait c'est-à-dire mën nañu dem ba si biir ni ko effectivement mën nañ la jox nga parrainage mais il faut ñu yokk del mais suñu yokkoo del balaay la 11 voilà mun nañ imagine toi ñu dem ba par exemple ba mois de décembre waaw

dañuy reporter dañuy boobaa dañuy reporter la publication. des am incidence ci processus électoral day am incidence sur le processus électoral. te soo amee processus incidence sur le processus électoral it forcément dañuy reporter les élections. d'accord est-ce que vous comprenez. donc man loolu laay ragal ce régime laa utilisé tey je sais. Euh, les partis de l'opposition ou bien les opposants waa Pastef c'est des gens qui sont très avertis xam nañu seen jeu fu ñu jëm mais je dis aux Sénégalais report élection actuellement Sénégal je discutais avec un sama benn grand avocat la il me disait que Sénégal lenn actuellement moo ñu dese suñu démocratie mooy élection